bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin tey mooy sunu ñaar fukkeelu jotaay ak ñaar ci risala bu ibnu abi saydin alxayrawaaniyu muy jàngale fiqul imaami malik rahimahullahu taala borom téere bi moo ngi tàmbaleeg nun ci waru xisa fil jamci bayna al maghribi dafa jëm ci lu jàngale lu jëm ci wàllu boole ay julli boole julli nag moom ci ñaari anam dong la mën a doon mooy lu mel ne tisbaar takkusaan képp lañ mën a boole wala timis a mën gée mënee sota boole lu dul yaar yooyu loolu mooy kon gée ak suba mënoo leen a boole mënoo leen a boole loolu kon ba léegi mooy rek euh, lu mel ne takkusaan ak timis it mënoo leen a boole waaw gee ak subaat ba te mënoo leen a boole moom daal booy boole tisbaar ak takkusaan lees mën a boole ak timis ak gee loolu lu mat a xam la teyit ngantit moo koy waral ngant ni nga xam ne yenn tukkikat yi dañ koy faral di def nga xam ne dañuy dem rek topp seenub liggéey topp liggéey ba topp liggéey ba nga xam ne wax dëgg yàlla mënoon na ñëw julli waaye xëy na nag coono yañ cee jànkoonteel ak tayyal ga loolu dong mooy tee julli nit ba wàcc daal di dajale julli yëpp di lañ julli di sëlmal loolu bàkkaar bu rëy la ne sëñ Tuubaa radiyallaahu anhu la mu waxoon ne wan mi wan mi azima zanbi lil muaxiri xataa tafutuhu bila usrin duri julli moom boo ko bàyyee ba mu faat rek julli moom dala war a jaral ndekam saxaaba yi daal xeex di xeex ngir yëkkati yoonu yàlla kooku ñooñu daa mel amoon nañ gànt waaye teewul bu julli jotee dañuy julli lu ñu wax ne dañ bàyyi ba àgg te ñoom dañuy xeex dëgg yàlla ñoom day mel ne loola loola ngànt la waroon a doon waaye teewut mu ngi noonu waaye yow nekk nekk say liggéey bopp rek say business sa liggéey daan ah man condition yi mënuma caa julli faat ay waxtu julli kiimaan la waaye ñooñu ñoo tane ñiy des am na ci ñoo xam ne seen ñàkk xam àgg na ci ñoom benn waaye laaj na ma nu maa defoon sax xanaa daal xanaa loo wërta am waaye moom lu ne lañ lay wax ne am na ne benn waaye boo xam ne moom bu xëyee day boole julli yëpp moom maanaam julli leen te jotagut kooku moo yées waaw xëy suba julli sël euh, ne day nelaw ba ay 9 balaa liggéey nag mu daal di julli suba tisbaar takkusaan kooku ci ay caaxaan la nekk kooku la muy julli dara baaxu ca mi ngi gàddu ay bor am na ñooñu it dañ naan damaa war a xëy damaa war a liggéey heure nangam julli ko jotagut ñu gaaw julli ko te jotagut loolu ba tey du diina du dara ku ko def yàq nga sa temps ku ko def yaa ngi yenn say bàkkaar julli gi moom baaxut maanaam ñu ne julli suba 5 heures lay jot. ñoom ñu ne man dama war a xëy quatre heures te su ma xëyee nangam nangam quatre heures ñu daal di ñu daal julli wala cinq heures ñu daal di julli loolu ba tey dara baaxu ca ba tey dara dara du ca baax kon boole julli daal moom lay jàngale ci yan anam lañ ko mën a defee tam tam wér mu njëkkee nag boole timis ak gee ma ne waru xisa yolamal nañu maanaam maye nañu rek fil jamii ca boole ga baynal maghribi diggante timis wala ishaay ak gee kañ laylatal matari guddik taw wa kadalika niki noonu maye nañ ko fii tinin ci ban wa gulmatin ak lëndëm maanaa bu fekkee ne dañoo dem ca jàkka ja war a julli timis wala waxtu timis ñu gis ne dafa xiin lool bañ tiit ne ah, lii ab taw la moom te bu tawee nit nit ñi julli timis départ seen kër ñu noo dargee ñu ñëwaat loolu dana xaw a jafe wala boo ko sax mën naa am mi ngi taw jamono yi timis waajoon moom day taw nga xam ne taw bii kat nit ñi dem wuy ji timis bëgg a wuy jiwaat gee dana jafe wala sax mën naam daa taw ba noppi taw ba noppi am ay ban mbedd yi nii wut jaar euh, courant coupé mu lëndëm lool nga xam ne daal nit ki buy julli ji dana ci jànkonte coono yoo xam ne risque la ba tey yooyu yëpp moo ci daje su boobaa imam ja day boole timis ak gee waaw dañuy boole timis ak gee naka lañ koy defee nag mu ne yu addinu dana noddal lil maghrib bi ñeel timis awwalal waxti ci njëlbeenul waxtu wa jël benn waxtu timis xaarijal masjidi ci bittib jàkka ja ndax foofu lañ baaxoo nodd suma yu axiru topp def na yeexe julli géegi xali julli eh, timis gi laa bëgg a wax xalilan tuuti fii xawli malikin ci la lëng ci waxi imam malik yu yuqiimu topp dana taxawal fii daaxilil masjidi ci mbir jàkka ji wa yusalliha tam koy julli suma yu addinu topp ñu noddal lil ishaa ñeel gee fii daaxilil masjidi ci biir jàkka ji waa wa yuqiimu tam koy taxawal summa yusalliha topp dana ko julli dana ko julli maanaam su boobaa nu ñuy def imaam ji wala borom xam-xam ba fa nekk da koy dirise ndax nit ñi dañoo miinut luñ baaxul gis duñ ko miin dañu noddal timis nañ ko baaxee noddale boo déggee mu naan bittim jàkka ja lool nekkut bu dee ci jamono ji yow xamoo loolu ndax jamono ji li nga xam mooy nodd moom ci biir jàkk ngay nekk di nodd ci ay rajo waaye jamono yu njëkk yi nag buñ masaan di nodd dañuy tax ci bun di nodd ngir nit ñëpp mën koo dégg wala ñu yéeg ci kaw soroor bi waaw kon loolu moom bu dee ci jamono ji daal dañ naan dañuy noddal timis fañ ko baaxoo noddale ca rajo ya bu dee jamono ji ca rajo ya su ko defee ñëpp xam ne timis jot na buñ noddee nag daal di xaar tuuti bañ a julli xaar tuuti euh, xaar gi nag euh, ci anamuk sopp rek la bu ñu xaaree tuuti daal di julli timis bu noppee rek daal di noddal gee boo déggee mën a ci biir jàkka ji lam ci jublu rek bul bul jàpp waxee ci biir jàkka ji jàpp ne lim jublu ci biir jàkka ji mooy fañ ko aadoo euh, nodd goo xam ne ah, <coughs> baaxoowuñ ko <coughs> maanaam dañu nodd nodd ko tuuti rek dañu nodd nodd goo xam ne xumbut maanaam boo déggee mu ne dañuy nodd fii daaxilil masjid ci biir jàkka ji mooy nodd goo xam ne aadoo ko mooy dañ koy noddal nodd gu oyof waaw kii nodd day dugg ci biir jàkka ja ngir bañ waa koñ bi dégg ko daal di nodd nodd goo xam ñoom ñi teew ci jàkka ja donc ñoo koy dégg waaw ndax gee jotagut te bu noddee ca kaw waa koñ ba dañuy jàpp ne gee na ñoom ñi teew ci jàkka ja rek lañ may loolu lañ may loolu waaye ka nekk këram moom kenn mayu ko ko su ko defee daal di nodd nodd ko oyof goo ne du ko nodd ci rajo yi nga ne du xumb su ko noppee daal di liqaam daal di julli gee fekkat gee jotagut waaye ñoom may nañ leen loolu ngir ngànt waaw gee jotagut Mhm. su boobaa nag kenn du mën a naafi la tey dañuy daal di ñibbi loolu sax la ci teg moo tax ne summa yansarifuuna topp danañu ñibbi mais danañu wëlbatiku wa alayhim te fekk nekk na seen kaw isfaarun ak set qabla maghribi shafaqi njëkk fàdduk safax sax mooy ak leer rek neen na su ko defee da nga xam ne kon géej jotagudde ndax mi ngi am ak leer ba léegi maanaam safar sa mën naa am safa safar sa fàddoogut su ko ñu daal di gaaw ñibbi ndax jàkka ja kenn du fa toog di wérd wala nangam ku fa toog buñ fa toogaatee ba gee jot dëgg-dëgg gee da leen di waraat ndax léegi dañ leen ko mayoon rek fekk gee jotugutoon te it ñoom ña teew ca jàkka ja rek lañ ko lañ ko may yow mi teew sa kër lii mënoo koo def mënoo ko def ndax yow sa kër nga nekk mën ngaa toog ñoo do timis nga julli toog buñ bu gee jotaatee nga daan julli waaye ñee war a dem ca jàkka ja baagante dem dëppaat loolu loolu lañ leen loolu lañ leen ooyo falal <clears throat> jóge na ci loolu nee na wal jamu waaw su ko defee ñii nag nga xam ne ñoo dem ci jàkka ja boole timis ak gee duñ saña naafila de duñ def saña def safaa witar loolu ne waxtu waxtu gee dëgg-dëgg daa jot kon bu ñibbee seen kër dañuy toog ba waxtu gee dëgg-dëgg jot ñu doog a saña def seeni naafila nag mu ne wal jamxu boole ga bi arafa ca arafa ca màkka bay na waxri diggante tisbaar wala asri ak takkusaan Ah, inda sawal fa tisbaar mooy fa walbatiku jant bi lool loolu sunnatun waajibatun sunna sunu feddali la bi adaanin day nekk ci ak nodd wa iqaamatin ak liqaam li kulli salaatin ñel gépp julli bu ñu aj màkka boo demee ci buntub aj màkka bu taxawee arafa tisbaar ak takkusaan dañ koy boole foofu maanaam bu tisbaar jotee zawal mooy bu tisbaar jotee rek bu tisbaar jotee rek dañuy noddu liqaam julli tisbaar noddaat liqaam julli takkusaan tey dañ koy wàññi ndax jamono ñoo day fekk ñu nekk ci tukki dañ koy wàññi kon julli ku nekk dañ koy noddal liqaamal ko wa kadalika niki noonu fii jamiil maghribi ci boole timis wala ishaay ak gee bil musdalifa ca musdalifa ida wasala neem àgg na ileeha jëm ca moom naka noonu tamit bu ñu taxawee arafa ba jant bi sox nit ñi dañuy jóge foofa jëm musdalifa bu ñu àggee musdalifa xam nga timis moom jot na ba noppi bu ñu àggee musdalifa nag suñ demee dañuy daal di julli timis dañuy noddu liqaam julli timis bu noppee bu noppee daal di noddu liqaam julli gee te wàññi ko waaw julli gee te wàññi ko allah loolu añ ci añ màkka la waaye da ko caa dugal comme day tudd wàllu wàññi rek day tudd wàllu boole moo na mu boole ko ca mu ñëw ci meneen masala mu ne wa ida jadda ndeem tarna asayru dox ba bil musaafiri ci aji tukki ji falahoo kon am na sañ-sañ an yajmaa mu boole bayna salaatayni diggante yaari julli waaw loolu moo xam way saa jadda sayru du ci ab sart maanaam nit ki bu fekkee day tukki situation laaj ko situation laaj ko rek kooku ba léegi mën naa boole ñaari julli bul fàtte rek bul fàtte ne nee na nee woon naa la buñ nee boole ay julli rek faa wu tisbaar takkusaan lay doon wala muy timis ak gee loolu rek lañ ci kon kii tukki rek même bu fekkee ne euh, euh, xëy na tukki ba méttiwut wala nangam moom daal bu fekkee ne situation bi laaj na ko rek te loolu dinañ ko jàngale ci kanam subaa kooka may nañ ko mu boole ñaari julli boole gii muy wax nag moom la ñu tuddee al jamu suwari boole goo xam ne boolewoo melo la waaye ca dëgg-dëgg du ak boole moo tax mu ne <clears throat> fii axiri waqti zuhri ci mujjug waxtu tisbaar wa awwali waqti l asri ak ci njëlbeenul waxtu takkusaan boole googu la bëgg a wax boole gi moom ku nekk sa kër sax mën na ko euh, doonte ku nekk sikar dañoo bëgg julli gu nekk nga julli ko ci njëlbéenul waxtoom maanaam ni muy boole ñaari julli mooy lan ci boole gi mooy tisbaar jot na mu bañ koo julli bàyyi ba muxtaarum tisbaar di waaj a jeex nga xam ne la ca des mën na caa julli mu daal di jóg liqaam julli tisbaar bu sëlmalee tombeeg takkusaan dugg si ndax ñoom ñaar dañoo sasaloo mu daal di jukk li xaam julli takkusaan bu ko fekkee mu ne ci tukkit bu ci nekk da koy julli ñaar rakk koy da koy wàññi bu fekkee saati wàññi daje na ci moom xam nga kon boo kon boo ko seetee boolewut de ku nekk da koo julli ci waxtoom waaye daa bàyyi benn bi ba a jeex ba muxtaar mi waaj mu julli ko ci catul waxtoom ba mu sëlmale santeeg takkusaan moom it di doog a dugg mu ko kon kenn ku genn julli bu nekk ci waxtoom la ko jullee moo tax ñu tudde ko boole goo xam ne ci melu nii daa boole waaye boo ko teqantaloon da ngay gis ne julli gu nekk ci waxtam la ko jullee waaw loolu moom tabaarkàlla wa kadaalika nekki noonu tamit al maghribu timis wala isha ak gee timis ak gee noonu dong la mhm. nit ki bu fekkoon ne situation laaj na ko euh, wala muy mu nekk ci tukki bi su boobaa timis mën naa jot mu bañ koo julli bàyyi ba euh, safax di waaja a fàddu mu daal di julli timis bu sëlmalee day day tasanteeg euh, gee di jot bu sëlma de sante gee jot mu daal di julli gee nga ne kon daa julli timis ci mujjug waxtoom julli gee ci njëlbeenul waxtoom waaye boo ko seetee ci dëgg-dëgg boolewut waaye ci melow ci kaw rek daa daa boole mu ne wa idar taxala ndem laxas na mu ndem mu ngi départ war a tukki muy arada lirtixaal mooy ndeem bëgg naa dem bëgg naa tukki fi awwali waqti salaati al ula ci njëlbeenul waxtu wu njëkk wa mooy wan mooy tisbaar bu la neexee wala nga ne mooy timis ndax nee naa ñoom ñaar la ñuy boole bu fekkee waa ji dafa bëgg a tukki te mi ngi nii di départ wala bëgg daa bëgg mi ngi bëgg mi ngi bëgg a départ ci njëlbeenul waxtu tisbaar tisbaar mi ngi doog a jot wala bu dee timis ak gee timis dafa jot rek waa moom mi ngi bëgg a départ ci waxtu woowa nu muy def mu ne jamaa boole na xiina isin ca waxtu woowee kon kon kooku may nañ ko mu may nañ ko mu boole maanaam da tënk nag mu gàtt waaye dinaa la ko leeralal incha allahu taala maanaa da ngay da nekk nii war a tukki moo xam ci tisbaar jot na wala bu dee guddi gi timis jot na te yow mii kat boo xasee ba départ doo mën a julli ci yoon wi te booy àgg fa nga jëmit bu dee tisbaar takkusaan la dana fekk timis jot kon kon saan dan la faat timis tisbaar moo xam nga jot na nii mën nga koo julli waaye takkusaan saan yow ngay xalaat su ma jullee tisbaar nii dugg ci lii ma war a dugg de dugg ci tukki bi su may àgg fa ma jëm takkusaan dana weesu te mënumaa julli ci yoon bi lu oto bu ñuy gaare mën a julli ci yoon wala yu mel noonu wala boog bu dee nga dem ci timis ak gee fi mu toll nii moom timis jot na nii waaye boo jullee timis gee moom dana la faat <clears throat> ndax boo nee naa xaar ba àgg boo dem booy àgg day fekk fajar jot <clears throat> kon dana la te mën a julli ci yoon wi kaa bi bu fekkee am na gis nga kon kaa bi ku dal nga xam ne am na kon hmm. waaye daal yaa ngi aéroport tisbaar jot na moom mën nga ko julli amul problème waaye boo jullee tisbaar daal di dugg ci avion bi mënoo julli ci avion bi te booy àgg dëkk ba nga jëm danga fekk moom tisbaar wees tëkkusaan weesu tisbaar moom julli nga ko ba noppi waaye tëkkusaan ji da nga fekk mu weesu ndax timis dana jot ku subaa faat nga ko te faat la ñuy bañ wala boog yaa ngi ci ayra boobu timis jot na mën ngaa julli timis amul problème waaye géegi nag moom boo xasee ba yéeg ci li nga war a yéeg mënoo caa julli te booy àgg fa jëm da nga fekk fajar jot kon gee da ko faat situation bu amee nooy def mooy da ngay boole ñaari julli yëpp da ngay julli tisbaar sëlmal jóg liqaam julli takkusaan bu la fekkee ci tukki boole ci nga wàññi leen xam nga takkusaan jotagut waaye da nga koy julli bu dee ci waxtu timis ak gee la da ngay julli timis sëlmal jóg liqaam daal di julli gee te bu fekkee danaa fekk ci tukki ba tey mën ngaa waañ ni ki ku dëkk bawal nga ne day dem ba aéroport bu xase ba àgg aéroport kooku naa wàññi kon euh, loolu mooy situation bi bu njëkk bi ñaareelu situation bi mooy lan mooy yow kat waxtu wu njëkk wi moom mën nga koo julli ñu ne la yow tëkkusaan fu mu lay fekk wala bu dee timis ak gee ñu la gee fu mu lay fekk nga ne ah, àgg fa ma jëm de dana fekk gee du jeexagoon moom wax dëgg yàlla mën naa déparé fii julli tisbaar départ su ma àgg su may àgg fa ma jëm dana fekk sax muxtaarum takkusaan du jeex wala dana fekk muxtaarum gee du jeex ñun la kon kat moom doo boole kon jullil waxtu wu njëkk bi boo àgg nga julli waxtu ñaareelu yow amoo problème waaw ah, yow yow yow amoo problème waaw ah, ah, waaw tisbaar dalaa fekk Dakar ñu nodd nga julli tisbaar ñun la ah foo jëm nga ne Touba ñu la Touba kañ nga fi nga ne ah Touba xam naa ne moom su ma fay egg dana fekk muxtaarum takkusaan du jeexagul kon ñun la déen mënoo boole na kon nga julli tisbaar boo àggee boo àggee Tuubaa day fekk takkusaan moom euh, jeexagut nga daal julli takkusaan yow amoo problème wala jullil timis boo àggee Tuubaa danga fekk muxtaaram du muxtaaram gee du jeexagut nga julli gee ci waxtoom yow amoo problème waaw ànd ak nag oto moom manees na ko gaare euh, bu fekkee am nga ca sañ-sañ wala waxaa waxaale waxaale waale nga ko waaw kay mi ngi noonu <coughs> bu fekkee mayuñu la nga julli nag waaw kon situation la <coughs> kon loolu mooy ñaareelu cas bi kaa bu njëkk ba nee naa leen mooy kaa bi nga xam ne ñaareelu waxtu bi muy takkusaan ji wala gee booy àgg day fekk mu weesu kaa ñaareel bi mooy booy àgg dana fekk seen muxtaar nag laa wax mooy li gën ci seen waxtu du jeexagoon kon ba tey ñu ne la jullil tisbaar bu àggee julli takkusaan jullil timis bu àggee julli gee léegi nag bu fekkee da nga ne déedéet man kat su may àgg dëgg la dinaa fekk waxtu ñaareel wi du jeex de waaye daroori jo dong laay fekk daroori jo maanaam su ma jullee tisbaar nii dëgg la su may àgg fa ma jëm moom du fekk timis jotagoon waaye lii tee timis jot du bari de ñu la loolu de kon daroor la mooy waxtu ñaareelu takkusaan wala nga ne su ma jullee nii départ ah su àgg fa ma jëm su ma àgg danaa fekk muxtaarum gee dana jeex de waaye danaa fa fekk daroor yi mooy waxtu ñaareelam kooku moom dañ naan la yaay tànn rek bu la neexee julli tisbaar julli takkusaan léegi wala bu dee timis da nga julli timis julli gee léegi bu la neexeet nga xaar ba àgg julli ca julli leen ñoom ñaar takkusaan ak timis seen darooriyu seen seen darooriyu loolu nag nee ñu moo gën waaw nee ñu moo gën waaye daal dañ leen tànnaloo loo kon yow su boobaa waaw waxtu wu njëkk yi moom mën nga koo joox ci waxtoom muy baar ji wala timis waaye waxtu wu ñaareel bi nag moom ci daroori ja doo nga ko mën a julli ñun la kon defal noonu jullil waxtu jullil tisbaar boo àggee nga julli takkusaan ci darooriyam jullil timis boo àggee nga julli gee ci darooriyam <coughs> waaye sañ ngaa boole nag sañ ngaa julleendoo ñaar yëpp defe naa moo gën a noppale nag ñaar yëpp ah, kon yëpp mooy xeetu boole yi <coughs> leeral naa ñetti ci am yëpp nee walil maridi aja tawat ji day am na sañ-sañ mari de ñeel na aji tawat ji an yajmaa mu boole mu boole ñaari julli yooyu isa xaafa ndeem ragal na an yuxla ba ba deefi not ala ak ca xelam ma inda zawal fa wëlbatiku jant bi nag ba mu jotee ba mu jotee lañ ko sant loolu wa inda wa indal bi ak fa jant ba ba nga xam ne dafa feebar léeg day mel ne kuy xaw a xam feebar bi da koy not ba du ànd ak xelam kooku moom it bu jamonoy tisbaar jotee jamonoy tisbaar bu jotee euh, ba tey kon man may nañ ko mu boole waaw may nañ ko mu boole tisbaar ji ak tëkkusaan bu fekkee timis jot na tamit may nañ ko mu boole timis ak gee boole gi nag ñaar yëpp la moo day xool ci situation rek bu fekkee situation daa nekk situation boo xam ne nañ jàngaloon bu nañ jàngaloon ci yoon mu njëkk rek la lu ca jàppandi ci moom rek mu topp kaa boobu waaw ba tey it mën naa def jamaan suwariyan mooy tisbaar jot mu bañ kaa julli ba muy waaj yeex jeex ba mu des lu mat ñeenti rakka mu jóg julli tisbaar bu noppee takkusaan jot mu julli ko wala mu yeexee timis ba ca mujjug muxtaaram mu julli ko bu noppee desante gee dugg si mu julli ko waaw moom day xool boole gi daal mën naa xool ci situation am rek lu mu laaj ak feebaram nu mu demee ak yan yan waxtu lay xam ak nangam ak bu xamee kañ lay yeewu ndax dana fekk waxtu ñaareel bi muxtaar mi wala daruri ja na topp kaa boobu rek wa ida kaana uh, nu ngi déglu wa in kaana bu nekkee aljamcu boole arfaqa di gën a ñeewante bihi ci moom li batnin ngir biir bihi boo xam dafa nekk ci moom wa naxwihi ak lu nuroog biir kon ba tey jamaa mu boole wasata waqti zuhri daa daa bind wasata rek waaye mooy ci mujjug waxtu tisbaar wa inda gaybubati shafaqi ak fafaat bu safansa loolu beneen kaa la koo xam ne dafa yor mettitu biir nga xam ne wax dëgg yàlla muy def tisbaar jot mu jàpp julli eh, takkusaan jot mu jàpp julli noonu daa xaw a métti ci moom ba tey kooku lañ koy sant mooy mooy moom mën na koo def mën naa julli ci waxtu wi waaye méttitu biir bi daal da koy xaw a sonal maanaam jug taxaw di jullee ko julliwaat moo koy sonal hmm. kon kooka may ne kooka na def jama an su wari yan loolu sax moom naka jekk sañ na ko même bu féewul toon sañoon na ko sax kon kooka nay def rek bu tisbaar jotee mu bàyyi ba ca mujj mujjug muxtaar ma mu julli ko te sante sant dugg si mu jël mu boole ko nga xam ne bu xasee ba jóg rek day julli benn yoon rek boole ñaari julli yi mu jeex kooka nay def noona nay def nay def noona bu fekkee nag biir ba da koo sonal ba eh, àgg ci di ko loo nga xam ne lu xamante fi mu nekk nga xam ne mën na cee faat na topp lañ njëkkoon a jàngale rek waaw xool ba xam nu feebar ba demee bàyyi na lool nee na wal muxma alayhi ki nga xam ne dafa xëm baat bépp loolu lay firi al muxma mooy ka ñu xamal alayhi ci moom mooy ku xam rek laa yaqdi du fay maa la nga xam ne xaraja génn na waqtuhu waxtoom fii irmaihi ci xam ci xamteem ga wa yaqdi waaye dana fay nag maa afaaqa la mu xiqi fii waqtihi ca waxtoom ba mimma ci loo xam ne yudriku dana dab minhu ci moom rakaatan ab raka fa akthara topp lu ko ëpp min asalawaati ci ay ci ay julli koo xam ne dafa xëm waaw bu fekkee dafa xëm xëm xëm ba waxtu wa jàll kon kooku du fay dara ndax dañuy sartu julli moom na fekk nga ànd ak sa sago na fekk na ànd sa sago waaye ki nga xam dafa xam ba waxtu waa weesu kooku du fay de kooku du fay ndax dafa ànd ak xelam kii nelaw nag moom mi nga ànd ak xelam de waaye ay nelaw rek la moo tax kooku moom bu yeewoo fay waaye ki xam moom du fay nag wépp waxtu woo xam ne ba mu tàmbalee ba ni mu jeexee da ko fekk ci xamtali moom du ko fay waaye waxtu woo xam ne nag dëgg la waxtu wi tàmbale woon naa xam waaye bi muy ximmiliku gis nañ ne waxtu wi des na te Euh, mën na caa julli sax lu néew néew benn raaka jëm kaw benn raaka jëm kaw maanaa waa bi ñuy noon di takkusaan dafa xam mu xam xam xam dem ba nga xam ne timis mi ngi waaj a jot mu ximiliku waaw ah ñu gis kat kii kat mën naa jàpp balaa timis a jot lu bon bon dana ci am ab rakka kon dañuy jàpp ne bi muy mi fekk na waxtu wi jeexagul kon waxtu wi daf koy war kon waxtu wi daf koy war kon day dem euh, même bu fekkee sax jëpp dem julli day na jàpp ne ab bor la bu mu war a fay ndax fekk na ci waxtu wi lu mu mën a jullee waxtu lu mën a jullee waxtu wi waxtu dañ naan boo ci dabee lu tolloog benn ràkka rek benn ràkka booba dañuy jàpp ne dab nga waxtu wa kon ci la la fekk waaw ci la la fekk mhm. waaw defe ba ñu yem foofu ndax lee muy waaj a wax moom buñ ca duggee leerali mën naa xaw a mën naa xaw a gudd ci yow donte ñaari xët la waaye détails yi mën naa xaw a gën a gudd insha allahu taala wallahu taala aalamu sawaab